à Madame la Présidente nationale chargée des femmes, Adia Waressa. Madame, Bravo, Assalamu asalaamaaleykum mbooloo mi permettez-moi de m'exprimer en wolof pour mieux me faire comprendre par les villages lointains du Sénégal donc alaikum waa Sénégal alaikum mbooloo salam alaikum les journalistes avant tout damay ñaanal son excellence le président Abdoulaye Wade gudd fan bu ànd ak wér képp ku ne amiin yal na nga gudd fan te wér su ma jógee nag ci loolu yaakaar naa bi événement yi amee ba léegi sama kaa kenn ku nekk journaliste bu ne presse bu ne woo nangu maa wax maa ngi leen di jéggal parce que dafa ne wax daa jooy ñu ne ko jooy mu ne dañ maa wax te jooy le moment n'était pas pour moi pour faire une déclaration donc au près de cette turbine, je me permettrai de vous dire qui je suis et ce que je représente dans ce parti démocratique sénégalais, en, particulier, mais en général pour le Sénégal et la diaspora tout entier. Parce que bima li nga xamante ne li wax euh, le règlement intérieur du parti démocratique sénégalais effectivement c'est vrai parce que depuis que le parti est né Monsoul am instance sens xamné def nañ ay délégués te wote quand on parle de délégué subitement kenn ku nek war ngaa par ne ko taxaju kon nomination mosul am tandis que le frère secrétaire général que je remercie au passage ci pouvoir am na droit nommer ay secrétaire général adjoint, denk leen liggéey ñu liggéey ko liggéey boobu nag mu doon dénkaane yàlla def na daf maa choisir Waré secrétaire générale nationale, chargé des femmes chargé des femmes moi, gouvernement virtuel du parti démocratique sénégalais si on allait à la si on était à la magistrature suprême du Sénégal ça n'a rien à voir avec la présidente des femmes présidente des femmes ma fait l'histoire tuuti lu ma fekkee Awa Diop à na xippee àjjana yi Firdawsi à ak àjjanatu Binta Lay Malika ñoom doon présidente nationale des femmes du Parti démocrate du Sénégal Seynabou Bouad, ma sœur la directrice de campagne de Awa Diop sommes ñu ànd ak Awa l'ancienne maire de de Point E Point E la directrice de campagne de Seynabou de euh, Binta Laye Thiaw jour bi nga xamante ne ñu ngi koy watee fii ci place Obélisque ci permanence bii bu Obélisque bii fii lañ ko doon watee Idrissa Seck moo ko doon supervisé avec Lamine président du groupe parlementaire

mais comme man damaa gëm Ablaye Wade Karim dañ ne Ablaye Wade Karim ne ko suspendre ba prochainement ma yaakaaroon ne instance yi jiitu yëpp je dinaa ci nommer deux muy les arabisans y avait trois candidats ou quatre ba ñu waxtaanee consensus mënuñoo déggoo dañoo dem wote jaaga gagné am 42 voix bi ñu demee ci euh, cellule d'entreprise Fallou Mbodj bu Louga moom moo nekkoon candidat ak Khady Dieye sama sœur bu Guédiawaye biñ leen ne dem leen waxtaan consensus mënuñoo trouver consensus dañoo wane Fall mooy am 26 voix Khady am 9 9 euh, voix donc loolu mooy la voie démocratique du parti démocratique sénégalais dañ ne concertation ou vote léegi pour wane rek li mu nekk tëkkuwul li euh, kii li Tafsir wax ni dañoo violé sàrtu parti bi loolu ci la ne waaye ku xam Woré Sarr xam ne Abdoulaye Wade la doon je me suis sacrifié corps et âme à cause du parti démocratique sénégalais. kenn du laajte wane saa ci Sénégal mooy kan mer naa nag ba sama déclaration waaye na mu waroon a diisee ci man diisee wu ko ndax man xaw ma woon ne bii cote de popularité am naa ko ci àll waxuma la Sénégal waxuma ñi ma bokkal parti waxuma ñi ma bokkalul parti waxuma la ñëpp ku ma xam ak ku ma kenn ku nekk intervenir ci réseaux sociaux yi wax lu la neex ne d'accord ci injustice donc la vérité est bien là tubaab dafa ne tôt ou tard la vérité gis Tafsir Cooy mi toog gor si ma def lañ ko def gis Doudou Wade mi toog gis Joseph Ndong mii gis ñeneen ak ñeneen je ne veux je ne peux que par bañ gudd war ngeen a xam ne le parti démocratique sénégalais est là le PDS de valeur est là le PDS authentique so le PDS authentique est là ñi jàpp naa ci kaso aljana firdawsi léegi nag ñu yor ko di ko xeex di ko xeex ba un bon moment nit ñëw rek lu tuuti wala njaam wu tuuti dugg ci suñu biir di def lu ko neex te te kenn du ko faj loolu moom mënatu la di si fini loolu jeex na mënatu la di te duñ ko bàyyi ndax ndax fedee suñ patrimoine la fuñ mën di dem fedee suñ patrimoine la ñoo ko liggéey ñoo ko fi xaar ñoo ko sonn te dañuy liggéeyaat pour PDS dellu si au au moins rien que pour sauvegarder

parce que Saliou Dieng amul prérogative di dàq ak génne te Karim am ji Karim moo bëggul waaye Sarr bëggul ñi mel ne man man nag bëgg naa ko ndax bàyyam ndax man gor laa waaye nag omb tuuti mais wala ma des a loo faa waaw waaw laa omb tuuti.